asalaamaaleykum sama mbokki député yi monsieur le président assemblée nationale maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu monsieur le ministre di nuyu ñu ngi àndal di ci ràññee le directeur général Assirut di sant yàlla di gërëm see Ahmad Bamba Xaadim Rasul di ñaanal Sëriñ Muntaxa mu yàgg fi te wér monsieur le président assemblée nationale ñi ngi lay jaajëfal 2017 man ak yow ñoo bokkoon toog fii ñu xam si yow dal jubal jub nangoo liggéey kon lépp loo xamante ni nit wax na ko fii moom la engagé te ñu ngi koy jubal en tant que représentant peuple parce que mérite woo yenn kàddu yi man monsieur président assemblée nationale li ma doon Sëriñ Tuubaa ma ko def waaye yenn kàddu yi dama koy ñaawlu ndax jaxasal ak population bi la sama collègue député bi wàcc fii léegi am na lu mu wax nee na budget assemblée nationale vingt milliards la d'accord vingt milliards la mais moom dana si am trois cent cinquante mille en tant que vice président dana si am deux cent mille francs en tant que indemnité de cent mille dana am neuf cent mille li nga xamante ne mooy fonctionnement de voiture loolu dana ko am si budget bi pourquoi ko wax kon loolu kenn ku nekk fii may wax ak yow da ko jot boo ko jotee loolu ci bis bi lay génn di ñaawlu yenn kàddu yi en tant que républicain en tant que maanaam doomu Sénégal dignement sama ñaari waajur yëpp fii la ñu dëkk Touba lan dëkk sëñ Touba di sama maam bu ma dégg yenn kàddu damay am gàcce monsieur le président assemblée nationale bu ma déggee yenn kàddu yi benn député taxaw di wax Sénégal yéen ñi nga xamante ne yéen Sénégal na ngeen boycotté weef bi nga xamante ni ay emploi ñoo fa nekk damay am gàcca te député bi ko fi la nekk kooku honte la pour république xeex politique warul xeex li nga xamante ni tey buñ boycotté weef dañuy manqué emploi ñu dàq ña fa nekkoon loolu tamit maa ngi koy ñaawlu maa ngi ñaawlu yenn kàddu yi nga xamante ni dafay xajjale presse bi ñu jëme ko si Maïmouna Ndour Faye ak TFM maa ngi ñaawlu kàddu yoo benn député moo ko wax il faut que ñu respecté peuple bi mën ngaa wax say wax pour jàppale ku la neex waaye doo wax say wax yoo xam ne dangay mel ni may Maimouna Ndour Faye mi nga xam moo kere 7TV nekk jigéen dërmu kenn nekku si nga di ko traité wane ni maam dafa far fekk farul ñëpp la fi nekk maa ngi ñaawlu kàddu yooyu noonu te di ko soldaté ak moom ñun ay député la ñu képp ku def lu yoon ñu wax ko ku def lu yoon ndax ñun sëñ Tuubaa mooy suñu maam faalewuñu kenn ku dul sëñ Bàmba monsieur le ministre maa ngi lay ñaax ci li nga xamante ni mooy baykat yi nekk ci côté Euh, Kébémer te seen tool yi nga xamante nii dañ leen a jël ba pare joxagul leen dara te mbay mi war a ñëw kon bëgg naa ñu taxaw leen nu mu gën a gaawee pour ñu fay leen li nga xaman leen war a fay monsieur le ministre maa ngi wax fii en tant que député monsieur le président assemblée naa li am si dëkk bi yéen ñu autorité war ngeen si jël maanaam responsable parce que lion yi nga xam dañoo gagné coupe d'Afrique président la république honoré leen may leen ay terrain am ñoo ay citoyen ordinaire yoo xam ne sama classe gi ci lu ñu bokk ñu jënd ay terrain benn maire Yewwi Askan ñu dëdd autorisation parce que jotul wàllam loolu dañ ko war a wax te fii boo demee fii nga xam mooy wakaam maire bi fi nekk nanguwut autorisé benn autorisation construire parce que liy problème bi mooy nee na jotul wàllam ci suuf si kon du autorisé benn te man ma jënd sama terrain 60 millions war a tabax lions yi war a tabax loolu tamit war na see jëm ay matuwaay parce que lii nag ngeen di wundi fii loolu war na see bokk république bu amul énergie mooy am bu république amul réew mu jaxasoo lay am di ñaawlu taxawaay yi ñu ñi taxaw pour yàq berte ak teer bi monsieur le ministre bi loolu amee yëkkat naa sama kàddu wax ni tey bi loolu waree am da ngeen a waroon jël arme bi ñu dem si berte ak terre parce que loolu ñun ñoo ko moom ñoo ko leb après Macky Sall ñun la fi nekkal nekkul fi kenn kon jàpp naa il faut que ñu conserver li nga xam ñu ñëpp ñoo ko bokk te bañ a yàq réew mi parce que bu ñu yàqee réew mi bu mu ko jël 2024 wala bu kenn jël 2024 lan la fi fekk lan lay defar kon il faut que ñu sàmm lu ñu doon nit mën ngaa politique nit mën ngaa wax ànduma ak yéen bu ma sañoon ngeen daanu suba waaye du ma yàq du ma yàqulu je vous remercie wa salaamu aleykum wa rahmatullah monsieur le ministre des infrastructures des transports terrestres et du désenclavement mon prédécesseur demande qu'on dise qu'on parle ici de vérité qu'on parle ici de paix oui nous devons parler ici de vérité et de paix monsieur le ministre j'aimerais que vous vous m'aidiez à convaincre les députés de votre parti et de votre coalition. quest faire avec 20 milliards de francs CFA, monsieur le ministre 20 milliards de francs CFA. Pouvez-vous nous aider à dire à mes collègues ce qu'on peut de francs CFA Si un kilomètre de piste coûte 25 millions de francs CFA, 20 milliards de francs CFA permet de faire 800 kilomètres de piste. Savez-vous que depuis dix mois, depuis septembre, les 20 milliards de budget de l'Assemblée nationale n'ont aucun contrôle Je suis le premier vice-président de la commission contrôle et comptabilité de l'Assemblée nationale. Savez-vous que vos camarades, à commencer par celui qui est derrière moi, refusent le contrôle des 20 milliards de budget de l'Assemblée nationale qui peuvent permettre de faire kilomètres de route, qui peuvent permettre de faire Si un milliard permet de faire un kilomètre de route goudronnée, 20 kilomètres de route goudronnée, qui peuvent permettre de faire 13 centres de santé bien équipés, qui peuvent permettre de faire 250 magasins de stockage, 20 milliards de francs CFA, qui peuvent permettre, qui sont, qui sont l'équivalent du cinquième de la somme mobilisée pour la campagne agricole actuelle depuis mois de septembre. la commission ne se réunit pas. Vos camarades qui sont ici, qui insultent tout le monde, qui piaillent, refusent le contrôle de ce budget. J'imagine que certains, pas tous, pas tous, il y a des députés qui sont intègres, qui ne prennent pas l'argent de l'Assemblée nationale. Mais peut-être que certainement ceux qui crient là sont ceux qui mangent, qui volent cet argent-là. 20 milliards, 800 kilomètres de pistes. Ils ont le ventre tellement gros qu'ils mangent 800 kilomètres de pistes.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 détourne 20 milliards de l'Assemblée nationale, refusant encore le contrôle, ce parti devrait être dissous. L'APR devrait être dissous. Dans un pays normal, quand on assassine les Sénégalais, on dissout ce parti-là qui s'appelle l'APR. Macky Bok, Sonko Bok.